donc sama papa it gënoon am euh, itte foofu pour ma dem ci lañ jàng nag ma xaar yoon xuruf loolu doyul mu proposé ñu ku bëgg après les cours nga def euh, <clears throat> étude tawxid kii tawxid ak étude tajwid waaw ci laa am nag ijaada bu baax ci taw ci tajwid ba conférence yu ñu mës a def presque maay jël prix yi foofu ci ci tajwid macha allah. Mhm. léegi nag yàlla def ma am BFEM foofu laa amee BFEM waaw doon nañ jàng français tuuti mais foofu laa amee BFEM foofu laa bëggee it lugal arabiya ndax moom macha allah yàlla def ma ma aay ci lool ci naxwu waaye xam nga comme sunu école yi rek bu njëkk surtout xam naa léegi nag ñu ngi moderniser bu njëkk ndax affaire il ulum daawul nekk ci programme bi arab daal dinañ jàng tawxiid dinañ jàng lépp daal dirasaat islamiyya naxwu surtout ak luxa arabiyya moom moo tax dañ ci doon ay lool mais lu jëm ci ulum du woon nekk njàng mi ñu ko war a njàgge daal jaar naa fa tamit ci ba jógee foofu dem ndaam son papa murit la mu dégg ñu ne tamit sëñ Mourtada yàlla na ko yàlla yërëm Mbàkke mi ngi ubbi foofu école al azhar waaye foofu dina fa may ay bourses sama papa loolu rek ko soxaloon na àggale sama njàng daal jàng bu kawe ñu ne ko fii Sénégal nag à partir de BFM amuñu baccalauréat amuñu licence mu ne moom déedéet incha allah moom dina def tout pour ma eggale sama njàng ci ci niveau boobu. yàlla def ma dem ndaam mais six mois laa fa dem fekk fa ay professeur égyptien ñu yéemu lool ndax su ma musaan def taw tajwid rek dama leen di épaté ak maxaarijul xuruf bi. ñu défé ni dal ki mom xana ci naar la leen di wax di wax ak man arab té bob arab fusha lay wax dafa 6 mois mais comme sama niveau dafa leena a dafa leen a trop sama bap ni fi mom damay tardé du fi duma fi mëna ki ma ngi fatali ko suñu magu daara sañ Modou karam mi ci la bokkon moo doon suñu magu daara ñu mag ñu lool ma tuuti won nak ma tuuti won trop bu di ma wax yow ya gëna école bi cuppit nga tudd cuppit lool kenn duma ko fàtte ba légui sañ Modou karam lool la ma doon woy cupkit xale bi gën a tuuti ci école ba pare dàq si jàng macha allah ma dellu si waat sama papa daal boobu je devais avoir 15 ans 16 ans sama papa ne daal maa ngi yàq sama temps parce que mujj gi fële ci oustaz Omar Sow dañu ñu jël ñuy jàngale xale yi nga xam ne ñoo gën a ndaw ma def fa quelque temps mais sama papa ba léegi satisfairewul ci loolu daal ne daal bu dee mënumaa am bourse foofu tamit on va chercher ailleurs yàlla ci kàttanam am suñu benn papa bu tuddoon Tanor jang bokk tour tur Tanor Dieng mii gaañu yàlla na ko yàlla yërëm du benn yi Tanor Dieng la doomu ndeyam la woon mi ngi woon enseignement supérieur sama yaay sama papa waxtaan ak moom mu ne ko man de xam naa ne euh, am na ay bourses yu nekk euh, Égypte Tunisie Algérie mais mu ne sa doom bi dafa ndaw trop te foofu c'est des pays arabes yoo xam ne dañoo libre mm-hmm. maanaam amuñu boobu tashdid bu ñuy mën a téye adolescente mais xaaral xëy na dinaa gis pays du golfe yi ñoom ndekete loolu la yàlla dogal ñu def concours bi maa ngi fàttaliku euh, ki doon responsable di imam la Dem maa ngi koy nuyu de passage wax dëgg yàlla am na jaar jaar bu rëy bu mu jaar ci sama avenir wax dëgg yàlla xam nga mos gis na naan yow sama taalibe bu ma bàyyi la xam nga ne maa la yóbbu kawet ma ne ko waaw yàlla di ci la sa loxo la ko jaaree. yàlla ku ñuy bàyyi xel sa moom. waaw ñuy bàyyi xel bu baax. waaw. <laughs> Ah. ان شاء الله يلا دف استاذ كي امام امام اسماعيل دم دفنا مو امام سيتي فيصل بي دفنا بي اورورت وا وا فوف لا نيك ما شاء الله متوكيبي كو خامون سما راني جاي بوب نيكون انسيمون سوبيريور لا كوكو نيكو سما جربات بغ ندي مو نيكو امول بروبليم نا دف نا دف كونكور بي رك ان شاء الله يلا دف مالغري سما جين اج 17 16 ans

sama papa amoon na benn xaritam boo xam ne voyagiste la woon moom daal dëkk bu nekk lay dem mu mës a yónnee sama papa benn carte postal ñu def ci fête indépendance di kowet boobu maa ngi ci oustaz euh, Omar Sow fële jàmm gën mais dafa am dune boo xam ne masaan wàcc damay ñëw toog ci dune bi mais may may xool carte postale bi rek mu koy nuyu di ko wax lii di ko ci arab maa ngi fii de Koweït fekke naa sax seen feetu indépendance bi daal di koy yónnee carte bi carte postale su ma toogee ci dune bi ca kaw foofu presque foofu dafa wéetoon ay poste caaro nga doon gis mais y avait rien dune bi dama daan dox lu sori lu mat ay plus de cinq cent euh, mètres carrés wala cinq cent mètres wala lu ko ëpp sax pour euh, dem école ba dellu si noonu jël rapide ñëw suñu kër daanaa def navette bi deux fois par jour presque dama daan yendu kër sa Omar Sow léegi yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm mu daal di ma daal ma ma toog rek comme xale rek ma naan suñu borom ma daal bëgg naa dem dëkk bi xam nii laa ko waxee bëgg naa dem dëkk bi <laughs> ndekete yàlla nangu na nangu na euh, ñaan gi ma demee ba egg Koweït ak ak jaar-jaar bi ak prépices yi ni mu ni mu demee rek mu mel ni miracle la presque sama voyage concours beeg voyage bi yëpp presque une semaine la durée maximum ñu dem nii Koweït ci laa dem ma dem foofu macha allah nekk amoon na ay nationalité yu bëri ay waa Comores waa euh, Nigéria waa Malaisie Somalie Érythrée ak euh, Indonésie dëkk asiatique yi Thaïlande Philippines ñoom ñëpp mais ndekete ku ci ñëw fekkoon naa fa benn jigéen quand même mu magoon ma tuuti ku ñuy wax euh, Fatou nen na ñang maa ngi koy nuyu de passage waxtel Aziza maa ngi lay nuyu di la di la di la jox sa jàmm waaye moom moo ma fa jiitu quelques années ma dem ñu war ma defal test ci benn école euh, moyenne secondaire maanaam moom comme fii mooy sunu CMI maanaam ñu defal ma test troisième mais dama def euh, test bi ci arab euh, def rédaction bu doy waar lu doy lu lu yéem daal lu yéeme parce que principal bi jigéen la ñoom école jigéen yi dañuy def ba ba bac doog a commencé nekk école wu nekk nag PIX ci université donc góor ñi ak jigéen ñi du bokk depuis primaire ba ba ba ba baccalauréat donc euh, Abla Nadra lañ ko doon wax c'était une palestinienne mais bi ma defee rédaction bi gëmu ko wallahi billahi wala talaay dafa doon wër école bi yëpp prof bu nekk mu dem fëgg ne leen la nouvelle kii doo ko ñëw moo bind lii kii moo mën foofu suñu troisième yi moo leen mën fuuf ndax foofa dañoo ñi daan ñëw dañ daan nekk ñu jànguñu arab ndax association islamique yi ñoo leen doon indi en général seen dëkk duñu jàng arab dañ leen defal deux ans yoo xam ne formation la jàngal leen ci alifun mm-hmm. ba ñu egg niveau ñu doog leen mën a yóbbu secondaire maanaam seconde ñu doon leen yóbbu ñu doon mën a yóbbu seconde pour ñu mën a dem ba am bac mais mu jaaxle mais nag euh, test yi bi ma demee ci Riyadiyat c' était presque nul c'était Riyadiyat c' était ay physique chimie ñoom matière bu nekk ñun physique bi la ñoo ñoom dañu am physique ak chimie donc dañu am prof physique am prof chimie à part prof histoire prof géographie à part prof algèbre prof euh, mathématique mu daal di def réunion d'urgence mu ne kon kii buñ ko bàyyi muy dugg ci classe bi ndax day day kon dafay font rek ci ñi nga xam ne dañuy jàng arab mënuñu dara te moom raw na leen donc nañ ko defal anglais bi tam ñu dem a test comme nee naa suma grand frère ma ngi woon na ma trois ans lu mu mosoon jàng rek dafa ma koy jàng bu mu demee lycée it dafa ma daan jàngal anglais ba amoon tuuti de notion anglais booleeg français bi nga xam ne amoon naa ci presque tuuti notion quand même a quelques années yi ma ko jàng ñu daal di may defal test anglais ma wax leen tuuti anglais ñu ne ak ah, kii va dégg nga français ma ne waaw ñu daal di colloqué ndeysaan ay professeurs yu baax ay jigéen ñoom ñëpp ñu ñu ñu volonté ñoom ku ci nekk di nga jël une heure de temps euh, ku ci nekk ci matière scientifique yi jox di ma ko jox donc je vais m'occuper une semaine bi yëpp wu dinaa jàng oh. riyadiyat mooy mathématique ma jàng algèbre di jàng physique jàng chimie jàng kii nu mu tuddati <coughs> même géologie ñoom dañ koy jàng ndax li ñu am ay pétrole ki yooyu mm-hmm. ak biologie donc yàlla def ma am ci ndam bu rëy macha allah yëpp daal ñu may jàngal ak anglais bi lii moo tax xëy na sama anglais fort macha allah ma am ci ndax dama ko jàng deux ans yoo xam ne rek moom rek la ak matière scientifique jànguma leneen. Mhm. donc c' telement tellement facile. yàlla def may continuer wallahi billahi tallahi macha allah yàlla def presque tout le temps je suis première. tout le temps je suis première deux ans yi mag ma dem seconde macha allah je suis première dañuy am foofu à partir de deuxième année. Mhm. dinañ am dinañ jàng français. français bi doxantu la woon ci man ba ni may def baccalauréat. Ah. yàlla def ma génn parmi les premières ñu am baccalauréat. Mhm. Euh, xam naa bu doon jamono bii.

affaire arab kiiwul ci daal Senghor mi ngi fi nekk. Mhm. affaire arab euh, kiiwul noonu la boobu sax defe naa ab Abdou Diouf ñëw na waa parce que boobu 80 passé na waa. Mhm. defe naa boobu Abdou Diouf ñëw na mais arab daal macha allah saxalu leen woon noonu amatuñu woon boobu nii nag organisation bii nga xam ne lu xew ci xale yi dañu ko fisal. Mhm. amul woon sama yaay daka daan naqarlu mu ne man xadi benn émission rek laay dégg sax. def naa suñu benn mbokku arabisant fàtte naa nu mu tudd moo ko doon def RTS. mais amul woon benn benn solo kenn du ko kii dara mais bu doon période boobu incha allah dinañ dinañ dinañ dinañ gis leneen. Mm-hmm. ministre bi de l' éducation nationale félicité ko ne ko je suis vraiment très content ndax sa jarbaat bii nga wax mu ne ko wax sama jarbaat la de yaayam sama sama sama sœur la sama yaay nekkoon na ci moom trois ans fii Arabie Saoudite mu doon sama doomu maam Abdou kii nu ti tuddati Alaaji Amat Asan Ndoy doon tamit sëriñ ci soxna umu xayri si bu àlla bu da baax macha allah maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di passage leen ñaanal jàmm ak salaam euh, suma nijaay boobu am na dóor am na rôle bu rëy tamit sama sama sama sama sama tànn matière yi ma waroon def ndax dafa ma daan gis tout le temps chaque semaine dañ daan ñëw weekend booba keneen dellu si ne ko ñuy wax Ramatoulaye Lo maa ngi koy nuyu de passage mi ngi ci defe naa ministre euh, de la non non de fonction publique ci Moustapha Diop la nek foofu la nek fa lañ ko détaché mom ñoo ñëw après man un an donc ñu nek fa ñetti sénégalaises faat ñang man Khadijatou Ndiaye ak mom euh, Ramatoulaye Lo mu daal ne fekk nak dama dama dama dama dama dama dama dama dama amoon curiosité ci àddina dal mm-hmm. nan lay mm-hmm. lepp la xamone politique lo ma wax rek dama daan nekk internat boobu demaguma sax université internat secondaire mën nañ ndeysaan ay ay directrice yoo xam ne c'est de professeurs mais dañuy directrice su internat lañu nekk man bu nit ñëpp reere ba tëddi man dem naa ci bureau ñuy waxtaan politique Ronald Reagan di waxtaan affaire Afrique di waxtaan lépp nag macha allah mu na ma yow ku la suivre Khadija di nga nekk politicienne sa réew ak yow comme ça ñi ci fo mais bi ma dem bi ma amee bac euh, semaine boobu maa ngi toog pour lijjanti yi inscription yi mais ministre bi woo ko ne ko grâce sa sa njarbaat bi nga xam ne am na bii point man dinaa may Sénégal juróomi bourse université parce que booba kawet ku am euh, diplôme bu ñu la jël Sénégal yi fa jiitu woon xam nañ li may wax maa ngi nuyu imam Hassan <laughs> Dieng de passage ñoom ñoo ñu jiitu woon tuuti fële lañ mujjoon dem euh, Irak ñu dem Irak wala ñu dem Égypte mais hmm. koy daaw leen jox bourse université donc yàlla def ko ci man ci yàlla daal ci man la ko jaaral mu ñëw may ñu ñett juróomi juróomi bourse ngi fàttali ku ñuy wax Abdoulaye Ndaw moo doon deuxième bi après ñeneen ñi ñi ci topp ñëpp daal même nisbal mi awiya hmm. ñu am 77 ñu am 76 ñëpp ñu daal di leen may bourse macha allah ñu daal di ku nekk tànn fa la neex ñi ci bëri sax kooku ku nekk États-Unis laay ndaw moom scientifique la am na doctorat léegi en orthopédisme yor sax kiyam macha allah euh, cabinet kiyam cabinet médical am ak ñeneen te xool nga ñooñu science lañ jàng ak ñoom Aline Coy ñu ngi Canada mm-hmm. moom it alim la ci ihsa la def maanaam statistique ak ñu bëri donc du arabe lañ jàng arabe lañ jàng mais ilm lañ jàng. Mm-hmm. waaw fii dañuy confondre boo nee rek wala arabophone ñu ne ah. arab la jàng maanaam imaam lay doon wala mu doon jàngalekat wala muy takk sëy Euh, maa ngi ko benn anecdote sama borom kër euh, dafa doon dafa nekk ci ci ci ay chef de service la fenn. Mm-hmm. ci de tenue la mais benn jour euh, chauffeur am mus na ma laaj. maa ngi doog a sëy foofu rek mu ne ma waaw damay laaj ndax nuñ lay takke sëy ma ne ko xaw ma nu ñuy takke sëy <laughs> ma lan ma ne ko du caaxaan xaw ma nu ñuy takke sëy. mu ne ma lan ma ne ko aban man jàngu loolu mu ne ma loo jàng ma ne ko man science politique laa def. mais daf daf daf ko jaaxal mm-hmm. parce que pour ñoom. ñun charia rek la ñuy jàng maanaam législation islamique. Mm-hmm. wala tarbil islamique wala diine mais xalaatuñu ne y a des y a des y a des médecins. koo xam ne defe naa Abdou Lahad la tudd wala euh, wala defe naa ne suñu saaliw doomu sëñ Fallou la moom comme ko xalaatoon na bu ñëwee fii en tant que médecin jógeen problème mu ngi foofu il travaille Arabie Saoudite médecin bu siiw la foofu ak ñeneen donc ñeneen ñi ci def ñëpp yeneen matière dañu préféré toog si dëkk yooyu parce que boo ñëwee. ñun on préfère sax ñi ñu jàng Roumanie wala Russie ñu ñu jël leen teg leen ci ay place ka ñu ñu jàng arabe te ñun fekk am nañ ay spécialisation yoo xam ne ñoo leen gën a ay fuuf ndax dinañ gagné anglais ñun nous sommes des anglophones xam nga anglais ku ko jàng par plus de dix ans boo xam ne yaa ngi ko def ba pare ak say gëstu personnel euh, soo ci waxee nit ñi dinañ la dinañ la déglu nii daal la suma jaar jaar yàlla mi dara teewul ma dem université sama nijaay boobu ne ma nga tànn science politique moo gën ci yow ak économie parce que presque benn jigéen laa ko fa gisoon mu am ko wala ñaar. Mm-hmm. mu doon euh, ab sa Claude Diallo période boobu dans les années quatre-vingt defe naa beneen femme. Mm-hmm. mu ne ma defal science politique bu ko defee nga def ko ci arabe ci anglais dina apporter lu bëri. Mm-hmm. ci laa ci laa demee nag am suma maîtrise suma master maanaam licence plus une une année. muy master ma am ci bobu magister lañ koy wax ma am ci daraja jeyit manam très bien ci arab wa ci arab wa ci licence en sciences politiques et économie mention bien euh, ma ñibbisi nak en 87 ci laa ñibbisi nag euh, jët naa quand même gis Ousmane Tanor jeng gis na gis tamit ki mu tudati maam bu na ma sàll dem aussi ci Allah Rawaan dem aussi université doon xol dal mais dal ba buntu yeb tëju rek wax dal mu ne wa dinañ la wo ak quelque temps dañ lay bind ne la waaw temps yi dal duñu li enam sax biñu ñu ubbi woon après ñu am ay galankor ndax amoon nañ quelque quelque quelques arabisants je yu bu fon yu xawa yu raar quand même bu ñu wax mustapha cham je pense mi ngi won comme euh, conseil culturel defena naa Koweït waaw Nous avons une ENAM chance de faire une section science politique mais après nous régime Abdou c'est bizarre nous ko pas même les université ñu comme directement avec les étudiants français mais nous dinañ leen quand même fonctionnaires concours mais ci arab arabisant yi dañ dañ tëj bunt boobu. Mm-hmm. waaw ñiy liggéey lañ ne duñ ci bokk mais il préfère xëy na xale yi nga xam ne ñu ngi à l'université ma ne ba léegi baax na rek nañu encadré suñu sunu doom yi ak sunu rakk yi. waaw ñu am lii boobu mais li doy waar mooy lan moo tax dangay dem ci ambassade yi ñun dal nañu OCI bi ñu defoon Koweït defe na en 86 defe naa ne boobu on était des étudiants ñu ñoo leen doon traduire ñoom Bachir Kounda rek kii kii waa. journalistes yi ñu jógee woon Sénégal ci ñun lañ doon rabattre pour ñu wax leen li xew ñuy envoyé loolu Sénégal ñun mujj gi ay réer la ñu def hmm. ñun ñoo leen doon traduire donc amatul woon benn à part Bachir Kounta hmm. mi dégg mi mi xamoon arab mais déggul arab la darija mais dégg na jàng na bu baax nag hmm. kooku ñun lañ mënoon ñoom lañu munoon waxal di ko wax information yëpp ci OCI bi mu koy envoyé euh, télévision ak rajo Sénégal waaw ci laa defee nag science politique gis nga ci conseil sama nijaay boobu waaye ma ñëw malheureusement liggéeyu ci bi ma xoolee ni bunti yi tëju na ma dem inscrire IFE mooy euh, nu tuddati institut des langues pour les étrangers pour perfectionner avec sama français. Mm-hmm. mais en même temps nag def école normale supérieure ma génn ci quand même 91 ak le KM après ci laa dugg dans l'enseignement comme ça donc mooy boo ne sama euh, spécialisation muy science politique ak économie liggéeyu ci. Mm-hmm. waaw amoon na rek passage bu bref bu ma defoon 86 ci stage au niveau du Banque Sénégal la Banque Sénégal Koweïtienne euh, parce que plus de 65 ou 70 nous des étudiants pétrole doral nous nous sommes toog vacances dañu daan indi tout le temps chaque vacances nous sommes ñëw Nous am comme yow ñun nous nous fa indi donc nous def stage ñun dinañ la jox foofu place nga bokk ci nga nekk presque xëy na topp ci directeur bi booba ku ñuy wax euh, Ibrahim shahin moo fa nekk benn franco égyptien ak ku ñu doon wax euh, son second doon euh, ki sec finalement sur sec moo doon président GIA moo yëkkoon moo nekkoon foofu malheureusement ma def vacances stage vacances deux mois yi ma rentré di xaar bu ma ñëwee ñu jël ma malheureusement bi ma ñëwee fekk. amoon na euh, immeuble ji li mbay bu ñu waroon jël pour changer fa banque ba. Hmm. malheureusement mu waroon bokk ci cadre yi ñu ne ma foofu lañu lay jël dañuy xaar recrutement yi ñu xaar kii bi mais malheureusement. Hmm. ñu comme li xew Sénégal rek <laughs> am ñu am ñu gën a bëgg nit ñi xaalisu ñëpp ñu jël ko malheureusement ñu détournement ba am. Ah. kawe seen retiré wu mer ba léegi nga ci la ñu créé benn banque fii te man doon naa bokk ci cadre yi nga xam ne kawet ñoo ma doon recruter. macha allah avec un bu baaxoon macha allah ci temps yooyu. baax na waaw yàlla mu am solo lool. waaw mhm. parcours bi ñu mhm. indi ko. parce mhm. que pour élèves arabisants yi. ak arabisantes yi. ñu mën a xam ne fi ñu jàpp jàpp nañu fu baax. ndax lépp luy matière bu ñuy jàngale fële ñu koy indi fii. mu nekk parcours bu am am solo nga xam ne képp kii doomu réew mi rek di yëngu ci wàllu arab euh, dañu lay gën a encouragé nga gën a jàpp. nga xam ne li nga nekkee dara la uh-huh. ñu gëm suñu bopp xam ne kenn gën lew ñu dara uh-huh. lépp lu ñuy jàngale ci yeneen langue uh-huh. ci ay matière matières yi bu ñoo ci arab bi di ko fa fekk la dégg ngeen matières yi nga xam ne wax na ko léegi mu am solo lool waaye ñu nekk weer woo xam ne bi euh, shahru rabiul awwal muy weer wa nga xam ne moom la ñu doon wax weeru gàmmu te bu ñu nee gàmmu rek xel yi fenn lay dem muy sangu sang yi sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku yaakaar naa ku ne mais mère kéemaan rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax na mu ko soppee wallahi dëgg la waaw foofu yaakaar naa daanaka sax moo doon temu tey bi uh-huh. waaye parcours bi da ci am solo ndax uh-huh. suñu doom yi suñu rakk yi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu uh-huh. ñu mën a xam ne ñoom fa ñu jàpp baax na waaw loolu moom parcours bi am na solo lool lool lool te gëm na ne dana def jeexit ci xolu parents yi bu ñu xam ne arab bi kenn du dem rek jàng bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wala qala rasul waaye lépp luy matière bu ñuy jàngale ci français bi am na ci arab tabarakallah xam naa dañuy ndar képp foofu dugg ci sangu sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi la nga dugal ñu foofa ca suñu waa jooju waaw mu ngi lay gërëm oustaz bii bi alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi ci chahru rabi al awal di weer bi nga xam ne ci la sangu-sang yi saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam gënee àddina mu doon rahmatan lil alamin ndax euh, ku gis lépp lu am ci àddina bi ci xéewal ci ay mbaax baax hmm. ci bakkenam ak ci sababam la woon ndax yàlla moo ko tànnal boppam hmm. am na ci ay euh, riwaayaat ñu ne bien avant sax muy bind aadama alayhi salaam ci la leer gi nekkoon ci moom ci ruuxul xudus hmm. donc ñun euh, duñu def lu dul di bëgg ndax li ñu yàlla boole ci ummati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parcours am nag defe naa ne Sénégal kuy musulman rek dañ lay répété loo mais ba nga nekk gone ba léegi xam nga lan la suñu maam yu baax yi tagg nañ ko surtout Sidi Hadji Malick def na généalogie yoo xam ne presque lépp ngay xam ci maam ya ci jaar-jaar ya ci juddu ba ci yaay ja ci lii donc dañ ci barké rek mais duñ ci xous parce que c'est déjà luñu luñu luñu xam la waye ci khilasu zahab dina wax ba wax nuñu nuñu ñu feeñalee zam-zam waaw muy muhammad salallahu alayhi wa sallam kan moko jur muy abdallah abdallah kan moko jur abdul muttalib hashim abdul manaf ba ci fihr kinana mudrikata donc muy fukki mamam yo xamne ne yëpp yonent bi dana begene ne nañ ma koy tagge Euh, yaayam di Aminata bint Wahb waaw yàlla def euh, bi Abdul Muttalib te boobu lañ doon woowee Cheyba Cheybatal Hamdi ndax dafa teel a am bi jaaw hmm. nee nañ dafa doon wax ne moom daal du tëddee rek gént ñu naan ko gasal hmm. muy muy muy def maal maal maal maal euh, biir di ñu wax ba mu egg si ba mu xam daal lan la mais mu bëgg koo gas nag te booba boo fekk ci dëkku naar yi moom euh, arabes yi en général ay doom yu gor ñoy doole ñom ñoy serwa manam ñom ñoy richesse hmm. té mom bobu ben doom rek la am ku mu woo ci qabila quraish rek tribu yi nga ne ko waaye amuñu sa jot hmm. daal dem bàyyi ko ndeysaan mu daal di nazar, nag daal di ñaan suñu borom bes bo ma mayee fukki doom yu gor hmm. dina jël ben bi def ko nëzër manam dina ko rendi def ko nëzër def ko qurba ilallah ah yalla motax euh, en général nit ki boy ñaan ñaanal lo xam day nangu ñaan moom toujours de ci ñaan loo xam ne rek bu ñëwee du indi ngaañ fekk ñaan nga nangu ko yàlla may ko ci laps de temps fukki doom yu góor macha allah mu am nag doole am kàttan am am ñu ko jàppale ci la ànd ak doom yi ñu gas teen bi zam-zam ci la génn ci lañ ko gas fañ ko waxoon mu gas ko teen bi génn ñu ne nag euh, Abdul Muttalib nekk na Sayyidu Quraysh hmm. ndax am na teen am na njaboot gu ko téye mu nekk nag boroom daraja ju mag macha allah. Hmm. ci quraish am fa makan lol am fa place lol waye nak comme li wax rek bo waxoon dara dang koy faté nak la teud nena ben euh, image ni Abdul Mutalib, na mu nako yaangi faté de <laughs> yow waxoon nga ne bo amé fukk doomi gor am nga fukk doomi gor mag hmm. nañ ba gassal dañ la teen bi am nga daraja légui nak defal liñ la wax ay ca hmm. ah mbugul dégg lo rek mbugul dégg lo rek <laughs> waye mu wax ko ñetti yoon mu xamné li du fo du gént gi du foo mu daal di jóg te su bëgg mu dajalee doom yëpp fukki macha allah. Hmm. te fekk Abdallah moo doon doom ji mujj ji mu gën koo bëgg mu def mu def lii nan lañ tuddati mu ne kon nañuy def bant waaw bant yi ñuy def bant fukki bant yëpp gudd benn nekk ci bu gàtt donc ku bu ku bu gàtt bi génne rek hmm. yow yaay yow yow la ñuy sacrifier mu def bant bi ñëpp def ñëpp def ñëpp def ah Maurice Abdallah koo ko yëkkati mu gàtt boo xam ne jeex na hmm. ah mu metti ko nag mu ne nan lay def ci àddina ah ci lañ ko ne ah lii de moom il faut nga xool na koy def waaye nag comme ñoom amoon nañ toujours ay xamkat ay ñoo xam ne dinañ leen génn ci yenn situation yi hmm. ñu ne ko da ngay dem ci Cham am na benn femme boo xam ne ku am xam-xam la xit sa bi dafa gudd ndax hmm. ay yiñ ko doon def ay ay ay kal yu ñu ko doon def ba nga xam ne femme yi ba ñuy egsi bi mu leen waxee lañ defoon ci gëléem gaag la ñu fattoon nag yëpp ñu xam ne kii borom xam-xam la mhm. ci la ko laaj nag ne ko ay ca lan laay def pour jot sama doom bi ci la ko digal lu ñu def rek ne ko nañu xool lu ñu def rek nañu xool dinañ ko jotee sans gëléem mhm. di ko def di ko def di ko def di ko def di ko def di ba mu nekk sans gëléem yoo xam ne daf ko war a rey ci lay doog génn nag ñu ne jot nañ ko moo tax ndeysaan dafa daan daf daan béggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaa ana ibni Dhabihayn maanaam man maay ñaari doom maay satu koo xam ne sama ñaari maam dañ leen a sakk dañ leen doon ndax ci Ismaïl euh, alayhi salaam hmm. moom tamit bi ko yàlla waxyu xaritam boobu di maam Ibrahima ne ko da ngay sacrifier sa doom bi muy doomam boo xam ne xaar na ko ba quatre-vingts ans après hmm. mais mu ne ko di ko mu demee ba am neuf ans mu ne ko da koy rey defe naa loolu yi ma rabbaaniya la hmm. ndax bu fekkone tay dañu bàyyi kuñ ne sa taw bu góor mooy doon ñi ñi sacrifier pour tabaski. defe na ne ñi dem julli du bari de. ah wal dina dina dina métti de. na il faut nit ki nek doom nek julli deug motax yàlla mom dafa am dafa am hikmam ci la jëlé xar mom nga xamni ñu ko jëlé won ci watu doom yi. Seydina Adama alayhi salaam haabil wa qaabil. waaw gis nga ci lañ ko daal di nag jëlee daal di koy jotee xar mu rëy xar mu rëy moomu yonent bi na sallallahu alayhi wa sallam xool nga presque téeméeri gëléem lañ jote maamam abdallah lañ jote baayam abdallah amina di yaayam dund la moom lu bëri macha allah 6 ans mu gaañu ñu suul ko ci benn xare bu ñuy wax abwa mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla baaxe ko musul jaar ci ci ci jëfi ndaw musul jaar ci naafeq musul jaar ci wax lu dul dëgg musul jaar ci bon yàlla musul jaar ci jaamu xërëm waaw yàlla may ko ay jikko yoo xam ne prédestiné la comme li ñuy wax yàlla ku mu bëgg a baaxee am na fu mu lay jaarale foo xam ne mm-hmm. waaw mm-hmm. Oh, doo mës doo mënal rek comme li yàlla waxoon li yàlla wax rek ci alxuraan ci suuratu yuusuf mm-hmm. nee na nee na nee na wala xad hamma bii wala xad hamma bii wa hamma bihaa mu ne law laa an raa burhaana rabbihi لنصرف عنه السوء والفحشاء بس كي يالا كوم بغنا فلي ديف اسراف السوء والفحشاء دو تي تومي موك دي والله بالله لا لو ادنا متي متي يالا دينا لا كيل دينا لا دينا لا اير دينا لا بروتيجي با جيف جو نياو دو تي فك دون لا تي فك موك تي ادنا دون لا تي فك مون نلا واخال نك بلا نيهي نده كوم يونت صلى الله عليه وسلم واخ نني مجنون لا واخ نني ابتر لا واخ نني بوكل فو باخ دا فا دوف دا فا دا فا دو واخ دغ du du li mais sunu borom bi tabaraka ku dagg ci ku dagg ci garab la maanaam mm. amul mbokk amul kenn amul ndey amul baay amul kenn yooyu ay xas la rek yoo xam ne euh, képp koo xam ne yaa ngi jubbu ci yow ci yàlla wala nga koy sellal seytaane mooy def loolu day xirtal nit ñi ñu lay ñu lay ñu lay lor waaw mais fekk fekk bu fekkee ne yaa ngi taxaw yaa ngi téye fu dëgër ci suñu borom mm. tôt ou dangay am nasar mm. moom moo tax yàlla di ko إذا جاء نصر الله إلا الله والفتح وراية الناس يدخلون في دين الله أفواج صبح عند نعم. ما إنه كان توابا يلا دفك دفل نيكو يو لي مالدينك دينك ميسيون لا بو خامني يا خاتم النبيين وامام المرسلين نعم. امول كين بن يوننت لي اولي العزم بري ني ابراهيم عليه السلام خليل الله موسى كليم الله خول العيسى معجزه ربانيه امنا ياي امول باي خول سليمان ذاهب الملك العظيم ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب يلا جوخكم ملك بو خامني موسو كو جوخ كين خولال يويو اولي العزم من من الرسل xoolal Idris wa rafa'naahu makaanan aliyyan ñooñu ñëpp ñu ay yonent yoo xam ne yàlla jox na leen loo xam ne joxu ko kenn mais dafa am lu doy waar mais li mu jox yonent bi jox ko kenn li mu jox yonent bi jox ko kenn wa innaka la ala xuluqin azim moo tax bi ñu ko waxee ñuy wax suñu borom ma ne leen kenn gënul mën a xeex suñu borom kenn gënul mën a xeex suñu borom day wax euh, <coughs> nuun mu ne ko waaw wal qalami wa anta bi nicmati rabbika bi majnuun ah innaka la ala xuluqin azim de ko terminé xoolal yow yaa gën ci nit li ma bind ci ci àddina yow yaa gën ci axlaaq ci ñëpp ça veut dire ñëpp la yonent yi euh, wàllu yi ñëpp la ci boole waaw amul kenn ko mu bàyyi waaw mu ne ko وما انت من عباد ربك مجنون يو تي سخيو لو سن بروم ني كوكو يدف دي <laughs> اي دي كوكو دي وانك لا الله خلق عظيم يو يا غنا كاوي تي تي تي تي اخلاق مانام يو يا غنا كاوي تي جيكو يرافيت دونك ديم دا با تك كو فو خامني سن بروم تبارك آه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خول julli yàlla suñu borom bi tabarak taala ak màggaayam ak dayoom mu ne man ak samay malaaka dañuy julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam kon lan mo ëpp loolu ban yonent moo ko am amul kenn amuko ci adina motax bi mu ne ànd ak jibril di dem ci laylatul mi'raj neena mu dem ba wakam ha wa kana khaba khawsayn aw adna waaw ku fa musa egg foofu waaw musa waxoon na yàlla arani la jahratan neena ba mu ko yàlla wanee tarfatal ay ni fa xarra saayiqan dafa daal di xam waaw bu daal xam ibrahima alayhi salaam nee na woon yàlla arini kayfa axyil mawta am na ci borom xam-xam yi ne ne bu ne woon allim nii kon ñun ñëpp dinañ xam nan la ñuy dundale nit mais dafa ne ari ni wan ko ko mu jeex di dewal xam-xam ba denc ko <laughs> dafa ko ilm <laughs> dafa ko ilm nga loolu loolu lu doy waar hmm. isa ibnu mariama am na yaay amul baay xoola rek hmm. te nee na man ma doon jël ruuxil qudus muy jibril ma di ko jël di ko di ko ànd ak moom di ko ko dooleel muy wax bi mu nekkee xale di dundal ay néew di faj ay gaana di faj ay lépp loo xam ne rek mu'jiza la woon ndax ñoom dañu ayoon ci ci ci affaire médecine mhm. Moussa mu ngi nii fekk Firawna nga xam ne dañu ay ci njibar yàlla jox ko mu'jizaat yoo xam ne kenn mënu koo wax mhm. waaw muy yat wa muy muy jaan ja muy loxo bu bu bu weex ba yooyu yëpp mu doon ay mbir yoo xam yàlla jox na ko yonent yi mais li mu jox ah wala xat atay naaka sabal masaani jox na ko lan sept aaya yoo xam ne lépp lu ci nit ñaan te dëggu ci yàlla wan la ko lépp lay faj faatihatul kitaab moom doon ko am waxat atay naaka sabal masaani maanaam juróom-ñaari aaya yoo xam ne amul lenn lu ko mën a dékku ci àddina jeex la la wal quraan al azim jox la nag kitaab boo xam ne képp ku ci jàpp mooy mooy ni mu nekk moom xaatim na ba in hmm. la quran nekk xaatimil kutub tawraat wal injil wa zabour ñoo ñëpp ndax dañ kaa falsifié waaye nee na inna nazalna zikra wa inna law la xaafidun yàlla wàcceel ko alxuraan joo xam ne moo ko protégé boppam hmm. kenn mënu ko falsifié ba jusqu'à la fin du temps waaw kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ko tamit ay saaba yoo xam ne yàlla def leen ñuy gën ji saaba xulafaayu rachidin kenn du ñoom muy ab muy abu muy ali mi nga xam ne moo ci gënoon a ndaw musul jaar ci caaxaan musul jaar ci bosan ndax yonent bi moo ko yar presque à l'âge de 9 ans 7 la koy yonent bi jël en charge donc moom ëwwalu shabab moo tax yaa machara shabab yéen ñi nga xam ne yéen xale yi te nga xam ne oustaz bii bi mu ngi ci def waaram bu ndax di leen gindi di leen indiwaat parce que seytaane bi ñu ko laa jee te ci te te bëriwul ci ñi mu doon waxal ci ñi mu waxal ci ci ci yaxyaa ci la bokk annabi yaxyaa mhm. ci ndax dafa dégg gis musu ko woon gis dégg jaamoom dégg ni mu ni mu lii daawul sax lam la lam yaati nisa daawul sax am affaire jigéen mhm. donc nit ku doon doon doon doon jaamu yàlla ñu tudd ko Jean le Baptiste ci ci ci français yi mooy yaxya doomu Zakaria iblis dana sunu borom man dal dama bëgg nga ma man ma sa jaam bobu permettre ma rek man sa jaam bobu ma gis ko rek yalla ne ko permettre naa ko mu dem fekk comme ni mu don def di purifier nit ñi muy purifier mm-hmm. ah mu ne ko man de ñew na ci yow ndax sa jaamu yalla ak sa selal ba nga egg ci daraja bo xamni am iblis lo rek la ban ci adina mm-hmm. bo jaamoo yalla selal il faut mu am ci yow yoon mm-hmm. mais neena ci koku rek la musul won am yoon lolo ko jaxal ci yahya waaw yaxyaa ne ko man euh, yaxyaa ne ko waaw man est-ce que mën naa laa laaj mu ne mu ne ko yow lan moo la gën a neex ci àddina mm-hmm. mu ne ko xam nga lu ma gën a neex ci àddina mu ne mu ne ko <laughs> góor ak jigéen mm-hmm. xam nga góor ak jigéen mm-hmm. mu ne ma nekk seen diggante def ci loo xam ne ñu nekk ci mooy yàlla rek mu ne loolu damay dundal ay année yu bari <laughs> waaw mu ne ko ak lan mu ne ko góor ak góor ak jigéen ak jigéen foofu moom xam naa ne moom àddina sa ndax seen waaso dootul continuer ti mu ne ko ak lan mu ne ko ak xale yu jigéen ak xale yu góor fii riyaani shabab maanaam bu ñu nekkee ñu ndaw lool laa leen soxla <laughs> maanaam quinze ans 16 ans nga xam ne fitna la ñuy doon bu dee 16 ans 17 ans xale bu góor bi xale bu jigéen bi kenn du ko mën a gis. mu ne mm. foofu laa leen soxle ba nag jaxase leen seen addina di leen mooy loo yàlla ba ñu egg presque 40 ans nee na su 40 di jot ma ràccee ko ndax nee na 40 ku ko xas ba am rek bu la yàlla mayee rust. Mm-hmm. nga xam sa bopp di nga commencé def rujuux ilal wara di nga commencé ne xaaral ma xool. Mm-hmm. waaw ndax man li ma doon def nii yëpp baax na mu ne ñooñu soxlaatuma leen. wala parfois dañuy wax diw am na ay jinne am jinne mais passé 40 ans amatul jinne. lii baa fay nekk maanaam tur baa fay nekk mais shabab la soxla xale la soxla ñooñu lay utiliser pour ñu yàqal ko àddina maanaam pour ñu yàq àddina bi yàq àddina suñu borom donc yal nañu yàlla xiir suñu shabab yi suñu ndaw yi xiir leen ci yàlla bu njëkk seytaan ne daan def ci bopp nit ñi sax booy julli ñu ne day gaaw a dee xale hmm. man daan nañ ko wax sama yaay à l'âge de sept ans c'est que may gis su xew amee rek sama yaay ne demal jàpp may jàpp di julli ñu ne Mariane sa doom bi day gaaw a <laughs> bi ñu ne leen bi ci kanam xale buy muuru ñu ne dafay gaañ nga tënj tënj loolu yëpp seytaane mu ko doon def ci bopp pour xale yi bañu lii mais alhamdulilah rabbil alamin maa saxwal islamia tey xale yi ñu ngi nii di muuru macha allah maa ngi ci rendre sax hommage ñaari xal ñaari ñoo xam ne man xaw ma leen sax mais dañ ma neex rek li ma gis ci ñoom muy ku ñuy wax jabaru Balla Gaye muuraay bi mu def macha allah muy buri bàcc li dama ko gis nii rek musuma ko gis musuma ko xam ñuy wax keneen ki muy jabaru Pape Diouf xoolal ñoom ñëpp seeni seeni jëkkër yi ñu nekk ci ñuy yëngu kooku tamit Mbébé Baas xoolal mi ngi muuru ma ñëwaat ci beneen journaliste muuru bu rafet ñu bettuñu mais c'est très joli muy Corombara Ndiaye bi nekk TFM ma xam ne nga xam ne ñii ay xale lañ de hmm. te ñu ngi ci àddina ñëpp war leen gis mais ñu muuru muuraay rafet macha allah maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk seen diine te xiir ci ñi nga xam ne xale yi siiw yu bëri ñu hmm. def loolu ndax dañu nekk xudwa hmm. boo nekkee exemple nekk ci kanamu nit soo defee dara dañ koy rafetlu surtout muuraay bi dafa rafet macha allah macha allah lii mooy ah li ma war a wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñambaas ci tuuti rek saxaaba mi Abu Bakar Saddiq radiyallahu anhu wa ardaa nga xam ne yàlla may na ko ba may ko nee nañ bi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk xajatul widaa من اليوم أكملت لكم دينكم ورد لكم الإسلام دينا نين دفع جوي نينك أبو بكر لمي جوي من ين خمولين لخيو من ما خم مساج بي ينتبي نياك نينك دو ديل سوات خول اللولو حكمة بابو كي يالا جوخ من نك نيت كو خم ني جل نينك تفتل كو ينتبي مو دخل كو def harb ridda hmm. ñi doon wedd yonent bi ndax nañ ne yonent bi gañu na rek ñun amatuñu amatuñu lu ñuy tey ci diide mu ne leen di ngeen dellu ci ci lislaam ko ci lis delluwul dinañ la rey wala dinañ jël ci yow ay ay daan yoo xam ne mm-hmm. nga delluwaat ci lislaam moo la ko gënal mm-hmm. ndax da ngeen di bàyyi julli lay muy am am solo mm-hmm. kon foofu ndekkee yonent bi doo tekki rek bëgg naa yonent bi rek waaye da ngay jaayante mel ni ñu ma abou mu am solo lool lool lool bu ko defee am na lu ñu aade woon muy ñaanal ñu génn àdduna ñu ñaan ñi ne ci kër yi rek ñu def ko ak ñëpp macha allah. ñu jàng fatiha fukki xulas ak benn. incha allah bu mu jokkoo bi nag 88 6 28 15 xam naa dañuy dégluwaale di ko jàngaari ñaan bi. incha allah ndax tey dañoo xaw a yéex a tàmbali. incha euh, après bu mu jokkoo bi di nañu ñu ko 88 6 28 15 15 ñu ànd ak euh, Seyida Alhaja mère Kéeman Tabarakalla bàyyi la ci. أبو بكر كي جناو يونت بي صلى الله عليه وسلم واو مو جاي انت يونت بي صلى الله عليه وسلم جند بلال جند نيب جند جامي جيل علالم ديف كو سي سبيل الله ليب بوم بايول دارا علالم ليب لا ديف تي يونو يالا تي اعلاء الكلمه الحق جابل يونت بي صلى الله عليه وسلم لولو كو ماي مرتبه مو اندك موم با يونت بي ويت باموي ديم isra wal mm-hmm. waaye bu mu demee ba wéet jibril ne fës nee na bi mu xoolee ci wetam abu aboubacar la gis kooku am na maqaama bu kawe bi yonent bi gaa ñoo mu xeex lool xorobu ridda ne duñu bàyyi euh, mbukk euh, duñu bàyyi mbukk julli képp ku ko bàyyi dinañ dagg sa baat mm-hmm. dinañ dagg sa baat wala ñu def ci yow ay ay ay daan yu ci wàllu alal mm-hmm. ak arab ni ñu bëggee alal ay xara ki nag ki bay yooyu bu ko defee ñëpp dinañ dellu si waaye waaye waaye kenn du Faaruq Omar ibn Xataab kenn du Faaruq Omar il Faaruq mi nga xam ne mm-hmm. moom moo doon jàmbaari fakk tëdd ga nga xam ne sëram boobu Fatima moo taxoon mu dugg ci lislaam mm-hmm. ci daaril alxam yàlla mi dara teewul yonent bi da daan ñaan ma yàlla may ñaari Omar yi ñu dugg ci lislaam moom Omar ibn Xataab Omar ibn Waas moom mu njëkk a dugg Omar ibn Xataab mu njëkk a dugg waaw mu njëkk dugg <laughs> yor jaaseem ne damaa dégg ngeen ne dafa am ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy def xijra ngeen ñiy def euh, émigration dem Médine ngeen di leen tere waaw maa ngi nii dégg ba cëg midi yor jaaseem ne ko wax rek na ma topp ko ñeme na ma topp kenn topp ko de <laughs> waaw ci la lislaam amee doole moo tax ñun bëgg nañu lislaam di am ñu mel ni faaruq maanaam ñoo xam ne dañoo dëgër ndax euh, suñu borom bi tabaraka yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne man raa minkum munkar fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati ku ci gis lu métti il faut na nga nekk jàmbaar am doole am alal doole lan lañ koy waxati doole ci dóore mais doole ci alal la waaw ak ci maqaama ak ci daraja mm-hmm. ak ci post bu kawe nga xam ne boo nee déet ñu ne déet mm-hmm. nee na ku ci gis lu bon ci jullit dindi leen ko ci dindi ko ci force waaw dindi ko ci def sa alal loolu du fa jóge nga gis baar bu nekk ci sa ci sa ci sa gox mm-hmm. nga xam ne dafay dafay dafay pervertir jeunesse bi ngay milliardaire dëkk fa mais proposer borom baar ba alal joo xam ne du mën a refuser mu génn fa nga def ko daar daara alquran loolu jeex na def nga jihaad boo xam ne kenn mënu ko woon def bu dee dañuy wax na fi jóge na fi jóge def ay porte plainte du jeex da nga koy fay loo xam ne dafay dafay dafay xëm hmm. fu ma mën dem di dafa am feneen mais dootu nekkati foofu nga def ko daara alquran loolu jihaad la hmm. beneen bi nga lan nga ciy def nga wax nga nga nga ngay wax wax boo ko waxee wax du jëliñ dara nit ñi egg nañ foo xam ne ci jamono bii maanaam jamono yi first track la comme liñ koy waxe sen sen ki bobu ñuy jël ci angle yi manam lepp loy loy gëm def fay gaaw ken ken amatu tan deglu ay wax yu bari mhm. donc lan ngay def soko ko wax da ngay perdre sa temps bobu bokku na ci nga nopi faf mu nek dafal iman kon yalla nañu yalla dolel ay ay doomi julit yo xamne am nañ alal. am nañ daraja mhm. am nañ pas-pas am nañ iman surtout ndax iman la yuminu ahadukum wa huwa yasraq mhm. yéen bi wax sallallahu alayhi wasallam laa yumin ahadukum wa yazni yu yumin ahadukum wa yu'di jaaro laa yumin ahadukum wa huwa ma wax ko ci sunu li muy jël alalu jàmbur amul kuy gëm yàlla gëm yonent bi gëm leen yàlla yàlla wàcc ci àddina di jël alalu jàmbur di lor sa dëkkandoo di sàcc di wax lu dul dëgg di denk ci kaw nit ñi di dundee ay mensonge loolu yàlla nañu yàlla dimbale xale yi ñu inclure leen ne nañu am diine gëm yàlla ba tax yooyu yëpp duñ ci tàbbi wa maa daalika alallaahi bi aziz waaw yomb na yàlla dëgg la dëgg la yàlla lépp yomb na ko mm-hmm. kon nag euh, loolu am na solo lool comme yàlla dénk ñi mm-hmm. borom doole mm-hmm. ñu war taxaw ci soppi loo xam ne lislaam àndu ca nañu taxaw kon nag yooyu yëpp ay paar la yoo xam ne ku nekk war nga cee mën a béy sawaar waaye ñu tollu jamono ja nga xam ne tamit am na foo dugg sànq ci wàllu Euh, émigré. Uh-huh. waaw foofu tamit jamono yi moom dëkk bi moom xam naa dese nañu lu mat quinze minutes. xam uh-huh. naa loolu lañ koy tënkee rek. Uh-huh. en tant que wéyjur. ngay wéyjur. Euh, ku nekk xam na wéyjur la muy yëg si doom. ah mu mel ne ñi dem ñëpp nag ay doomu jàmbur lañu. Oh, te jamono ji wax dëgg si yàlla yëf yi doy na waar. ci wàllu ñi dugg ci géej gi di dem wàllu Europe Espagne yi mel noonu. xam naa di bàyyi la nga am looy baaxee foofu mbokk yi dénkaale ko wéyjur yi. waaw jërëjëf sas bi bi wax dëgg yàlla maa ngi boole suma njaal ak suma naqar mm-hmm. ak suma tristesse teg ko aussi ci loxo xale yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo def tey vendredi noir réseaux sociaux yi ñëpp di def hommage ci ñi nga xam ne xale yi ñoo dem presque nee nañ quatre cent et quelque war wax deux ans trois cent ñu ma ay quatre cent et quelque sama doom moo ma wax rek sànq bu may mm-hmm. xëy mm-hmm. mu ne ma quatre cent et quelque la ma dem nañ ci jamono ji ñun ñu soxla shabab soxla jeunesse sunu ay doom ci dem ci lu ko xamul te lan moo ko waral mu mel ni ñii nga xam ne ñooy suñu gouvernant lam yataxarraku saakinan maanaam jéemuñu sax yëkkati benn baaraam ndax pour ñoom ñii ñoo jël seen bopp sànni ko ci seen ci maanaam ñoo xaru maam boobu lañ ko jëlee moom loolu lañ bëgg a wan nit ñi ñu gëm ko daal moo tax gisoo leen ci benn manifestation gisee leen ci benn indignation parce que nee nañ ñoom ñoo ko def ku jël sa bopp di ko dugal mais na mu xool cause bi lan la lan moo nekk war a daalik maanaam ginnaaw loolu lan la mais ku am li nga bëgg ci sa dëkk man su fi université ba may dem Koweït bu université amoon fi département arabe bu ñuy wax mais duma dem Koweït bu ñu jëloon njàngu arabe defoon ko période boobu nga cay am bac bac bi ñu valable nga dem université du ma dem Koweït dama dem jëngaane parce que loo xam ne amul sama dëkk ñun dama xamul fan lañ nekk mhm. ñii ñu gouverner. man dama xamul xanaa doole nit ki da koy jël jox ko sa voix ah mu def la noonu parce que noonu mooy lan mooy ngay bàyyi sunuy doom ñu ñàkk liggéey am nekk ci chômage bu doy waar ba ba ñànki ba mu leen di jaral ñuy dem ci lii nga xam ne yow da ngay tenter sa chance da nga naan soo yàlla man maree na damay dund damay dund su yàlla ndaree na dama ciy dee dama ciy dee foofu lañ ko def. nañu jàppale ndaw waaw. bi ay am na ci solo. waaw. bu dee chômage bi dafa amuñu lu ñu liggéey ñi amoon tuuti sax dañ naan comme dëkk bi neexul lu fi am ñu jël ko te ñun am nañ am nañ or am nañ xanaa jamaa xëy na lañ fi amagul te xëy na dina feeñ ba ci kanam yàlla mun na ko mais am nañ pétrole l'or noir am nañ Jéricho dans les années quatre-vingt laa déggoon ñu ngi koy ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy exploité kenn gisu ci redevant yi gis nañ tamit mu tuddati phosphate defoon ne bu ñu jëlee suñu kàddu jox ko comme li ñuy wax ci en science politique maanaam da ngay jël sa liberté presque quatre-vingt-dix sa liberté nga jël ko jox ko ki nga xam ne yaa ko jox sa carte pour muy wax ci sa tur di la sàmmal sa bopp sàmmal sa say bien sàmmal sa liberté sa sa intégrité physique sàmmal sa baat bi réew loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu mooy un président de la république mais mu mel ni ñoom heure bi nit ñi di jooy heure bi nit ñi di wax ne xool leen li xew. ñom ñu ngay dem di def benen gouvernement encore politique politicien lo xam ne jariñul sénégal yi dara man dama xamul nouveau gouvernement bi ñun lan lañu jariñ man mom la bëgg wax rek ba légui su fekkee ñun jariñ nañu dara ma xam kon man maangi damay jàngi waat science politique gisuma man gisuma lu mu jariñ wa ay alliance la yo xam ne ñom lay jariñ ku ci nekk ak sa intérêt ñu sacrifier suñu doom yi la hawla wala quwwata illa billah ah man de li may ñaan moy nit ñepp dal xeex mbir moomu képp koo xam ne mën nga ci wax mën nga ci def sa kàddu nit ñi dañ ko dégg waxal lii dakk wutal xale yi liggéey am xëy kër gu nekk bu fa xale doon am cent mille francs ndool jóge fa këru pauvre ku nekk ñu recensé ko bu fa xale doon am liggéey di fa dugal cent mille francs man day ñaan naa sunu borom yàlla na yàlla may ba ma mun koo def ci <laughs> ëttu suñu borom sama lu wér la lu wér la yonent bi sama ñi am alal ci réew yi bëri nañu mais bu xukuma yi bu jógul sa nguur gi bu jógul sax kay waaye ñi yàlla may alal uh-huh. dañu investir ci réew mi uh-huh. bu ko defee ñu gën a mën a téye njabootu réew uh-huh. waaye dama si gis ñaar yoo xam ni ñaari erreur la benn bi ci gouvernement bi la mooy dañu taxawu ndaw ñi ñoo am ci li ñuy jàpp vraiment uh-huh. daal yi nañu investir uh-huh. ndaw yi am fu ñuy jàpp ndax kenn ku ne rek uh-huh. bu jëloon téeméer yi ndaw ci entreprise bu mu ibbi boppam lu bëri dana wàññeeku tey waaye tamit ñi nga xam ne am nañu gaal xam nga ne rek ñi dañuy dëkk wax ci fenn rek ne xale yi ñoom lu ñu def dañu xaru yu meloon mais ñi leen di gëm la yoon wi war nañu wax ci ñoom ndax dañu leen di wax wax ak ñoom ba xam nga sénégalais lam ngi dafa neex ku ñëw ne la saa waaye am naa kaañ boo xam ne bii daal yow rek laa koy wax muy am na waaju xam yoon wi mhm. te gàllam baax na lépp ma assuré na mhm. léegi boo ñëwee daal am na lépp ñoo lay dañuy def convoi mhm. gaal gi du am benn problème ba keroog ba ngay àgg kaay mu yóbbu la ci kooku nga bindu occasion la na gaawal xam nga ñu bëri noonu lañ leen di. wallaahi noonu la de. noonu la de loolu moo loolu fi am de. ndax yaakaar na nit kii du la doo doo xam ne lii. yoonu dee la. dafay fay dem kon ñooñu di nax ndaw ñi. leen gëm na loo gëm na loo xam ne amul. ñooñu dañuy wax ci ñoom tamit. dëgg la dëgg la ndaw ñee ngi dee. surtout surtout surtout. Mhm. parce que ñoom tamit biñ leen te dafa am lu doy waar. Mhm. nekkatul ay portable yi ñu leen jël seen i traces dañuy def téléphone arabe. nee nañ dootuñ sax bind dañ koy waxante bouche à bouche. Hmm. ci lay jaar léegi moo tax ñu rëcc gouvernement bi ci lu bëri surveillance bi ñu rëcc ko fu nekk. Mm-hmm. ndax nit a koy wax nit nit wax ko nit wax ko fa ñuy daje kenn du utiliser portable. donc dañuy jékki-jékki fekk dem nañ. ñoomi neen ñoomi neen la. te ñooñu bañ leen interpellé dañ ne ñoom dañ doon yor seeni gaal di ci suturlu. Mm-hmm. di dem di am ay juróom bala fukki xale yi mool yi ñuy àndal. léegi ñu ne état bi jox na ay licence de peche yoo xam ne bateau yi nga xam ne étranger yi dañuy bopp bi dañuy bopp bi. Kibi, bi sunu thërwa samakiya manam sunu richesse halieutique la bob bopp bi ci souf nga xamne du ca des dara hmm. effectivement ñun ñu ngi dëkk fi ci wetu geej fi ci golf mais heure bu nek dañ daan am jeun fi ay ay gal di ter fi di indi jeun legi mbal bu fa téré fekk yow yaa def sa sport da ngay jaxlé do gis lu mat fukki espèce hmm. benn bu reuy nga ci gis ya rien ci dess ay jeun yu ndaw lañ hmm. bo waxé mo li ñu ne la gis nga ñun li lañu gis geej legi sunu mbal yi parce que mbal yi mak industriels yi mënuñu leen concurrencer ñooñu nag ñoo jël seen di gaal comme ay capitaine nañ tàmm nañ dem géej mën nañ gérer xale bu la jox deux cent mille nga def trente personnes wala quarante personnes alal ju bëri lay di la la lay doon. waaw ay cent et quelque dégg naa ay cent ndax ñoom dañuy wax mais nee nañ gaal yi nga xam ne mool yi ñoo ko yor bëriwul lu muy échoué ndax ay capitaine ñoo cay nekk mais dafa am ñoo xam ne ñeneen ñoo ci dugg jël jël gaal yi nga xam ne ay kii la ay genre caoutchouc la. lu ko bënn rek mu suux wala mu exploser muy lu doy waar muy lu doy waar te suñu gouvernement ñu ngi xool est-ce que ñun waruñu woon am Macky Sall bu mel ni Al Farouq Al lan la doon def Omar ibn al Khattab nee euh, kuy jiite nit kuy jiite peuple danga leen di jege nee nañ mës nay dox mës nay ñëw comme ni ñuy def ay waliima nga xam ne dañuy jël ay nit teg leen di di di leen euh, jox lekk. surtout ci cheikh Ramadan. comme moom yàlla defaloon na ko muy nit ko oyof moom moo doon servir boppam comme niñ may wax yenn këru diine yi surtout si waa Touba. Mm-hmm. dañ mooy bëri na ci kilifa diine yoo xam ne foofu dañuy dañuy servir seen bopp seen i gan. Mm-hmm. muy servir ba yem ci benn waay waa ji jël loxo càmmoñ bi. mu mm-hmm. joxaat ko naan bi mu jël loxo càmmoñ bi mu daal di taxaw ne lan moo tax ngay def loxo càmmoñ xam nga ne loxo càmmoñ baaxul. mu ne ko ci ci maarakatil mawta mm-hmm. maanaam benn maaraka bu ndaw mm-hmm. mu ne ko ci laa am laago ba sama loxo ndeyjoor bi mënatul lii nee nañ Omar jooy ne ko yow kan moo lay toggal kan moo lay fóotal kan moo lay raxasal mm-hmm. ah mu ne ko mooy débrouiller ni may def rek mu daal di jël xaadim min daal def ko jël fas jox ko jël yóbbal bu bari ne ko boo demee nga toog ci xoolal kooku xam na raaya bi mu yor maanaam xam na ki nekk ci peuple lan lay jànkonteel parce que dugg na ci peuple bi beneen bi ñu ne dafa dem di dox guddi dégg xale buy jooy muy jooy jooy yi metti mu fëgg daal di dugg ci biir daal di na ndaw si lan moo tax sa doom bi di jooy mu ne ko tax fa tamtu maanaam dama koo feral mm-hmm. te temps bi jotagul un an rek lay waram te deux ans la mu ne lan moo tax nga feral ko mu ne parce que soo feree ci lañ lay commencé jox xaalis mm-hmm. mu daal di dem woo gouvernement daal di ne bés ni ki tey ku judd ba ba ngay fer dañ lay jox xaalis booy téye sa doom waaw gis nga lii mooy xaakim lii mooy xaakim maanaam mooy koo xam ne dangay nekk président jege ci sa peuple buñ la wax rek nga ne loola da dem xam li ñuy jànkonte lan la waaw day bëri lu ñu leen di dëbb nag dëkk la mhm. kon dañ koy teg ci waxu sallallahu alayhi wa sallam mhm. kullukum raa'i wa kullukum sàmm bu ne responsable la. Uh-huh. la ñu lay sàmmaloo. Uh-huh. njiitum réew responsable la ci réew ba ñu ko sàmmaloo. dëgg la soxna si responsable la. ci uh-huh. néegu borom këram. boobu moom itam spécial lay doon moom. Oh, macha allah waaw macha allah loolu moom itam spécial la. <laughs> zawaaj wal talaaq wala. kaw mbayti ziwaaj moom kam parce que dañ kenn nekkoon ndeysaan waaw balaa gàmmu gi di jot mhm. mais bi ñu duggee weeru gàmmu ñu ne ah, comme que weeru sangu-sang yi la waaw sallallahu alayhi wa sallam bàyyi thème boobu ñu ah, dugg ci wàllu yonent bi mhm. bu ñu paree gàmmu gi nag ñu dugg ci baytu ziwaaj mhm. incha allah ñoo ko digal mbokk yi te danañu ko def ci kàttanu borom yi incha allah daanaka waxtu yi dem nañu dem nañu téléphone tey moom dafa amee jikko alpulaar tey jii moom. dëgg la dëgg la <laughs> tey moom amee jikko séeréer. amul problème voilà mais incha allah. xam naa béytu ziwaaj boobu moom. Mhm. mbokk yi ñu koy xaar bu baax. incha allah dama xam nag kañ nga ñu koy may nag. waaye mbokk yaa ngi lay xaar nag ci loolu moom. incha allah amul benn problème. incha allah soo leen ma contacter rek bokk ci disponibilité incha allah. bii di ñëw ñu ngi xool sax bu ma nekk sax. <laughs> waaw comme yéen a ngi ci benn amul problème incha allah. dinañ sotti suñu programme yi. incha allah kon ñu dina dina mën a nekk ndax euh, ñun dañu lay gërëm oustaz bii bi di la euh, sargal. Mhm. di la ñaan yàlla yokk la bu baax a baax a baax nga ëpp fii raw fii lool. ndax liggéey bi ngay liggéey ci jeunesse man sama doom moo tax ma xam la te moonte sa baay sama oustaz la woon. Adja Mariane ma ne ma ci moom te moom mooy bokk ci sa taalibe yi daan la suivre di déglu ci yow di la bëggee loolu di di di di wax di topp li ngay wax ba yàlla def suñu gisee nekkate boobu man maa ngi wër sa papa lu yàgg yàlla jaarale ko foofu muy sama muy sama muy sama muy sama papa di sama oustaz di sama kilifa yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana oustaz Ousmane Diouf yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana mu doon borom xam bu ñëpp naw bokk ci ñi ma ci langue ndax moo ko Oustaz Omar Sow benn lañ woon duñu woon ñaan waaw yàlla na ko yàlla yërëm dugal ko fa seex jannaati maal kiraamil baradat atqiya ma rasul karim fi jannaati naim ak mbokk jullit yëpp ngi ñaanal suñuy wayjur yi génn àddina mm-hmm. suñuy mbokk suñuy xarit suñuy àndandoo képp koo xam ne rek jullit nga mm-hmm. yàlla dugal baal la dugal la àjjana mbas mi yàlla dimbali ma yu mu dem balaa la rek balaa la buy dem te nii muy demee yàlla na ko yàlla dàq ba mu dem def ci Sénégal jàmm yàlla may ñu ñun way jur yi ñu mën a téye nag suñu doom yi gën leen a dolli éducation ba ñu bàyyi mbas mi ñuy dem ndax du ci avenir ndax dëkk bu amul jeune dëkk bu amul jeune musiba la waaw Canada ngi ne ku jóg mun a ñëwal parce que amatul jeunesse mhm. waaw bu ñu sacrifier sunu jeunesse parce que mhm. richesse la mhm. loolu yàlla moo ñu ko والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كنا مغوك نيكا وخوان مغوك مالكي ما نغوك waaye tur bi dëgg dëgg nag may aja xadijatu njay ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax macha allah macha allah di kàddu yoo xam ne dafay encouragé toujours ndax bu ñu xoolee ba muy commencé ba léegi commencé di encouragé ndaw ñi rawatina ñuy jàng arab nañu war a gën a fonkee li yor ndax wax nañu parcours am ñu dugg ak moom ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam ndi nekkoon mébétu yonent bi rawatina ci wàllu ndaw ñi ah, ndaw ñi nañu gën a bàyyi xel seen bopp xam ne ñooy avenir réew mi ñooy avenir u réew bi ñu ngi ko tuddee babul huda di takwini raja il ghadi waaw buntu jub ngir préparer avenir u kon nañu xam ne réew mi suñu réew la ñoo ko waral léegi yàlla dénk am am nañu investir nguur gi dañoo taxaw seen taxawaay bu mat sëkk taxawu ndaw ñi yaakaar na yooyu boo amee incha allah ndaw ñi bu ñu amee ci lañuy jàppare jàpp lépp dana jeex waaye ndaw ñi tamit bu ñu sànq seen bopp mm-hmm. loo xamul bul ca dugg xamuloo géej bu dugg ci géej xaalis bi ngay jël di ko investir di ko dugal ci gaal ga pour dem te wóorul di nga dem wala déet. te mu am bat boo xam ne baat ba kalimatu xayru saaliha muy barsa wala barzaq lu ko fi jar dara jaru ko fi kon nañu toog liggéey suñu réew bu ñu gëmee suñu bopp incha allah waa Espagne nañu gëmee seen bopp ba liggéey ba jóg bu ñu ko gëmee noonu suñu réew liggéey suñu réew incha allah ñun ndaw ñi jàppoo donto ne kenn jàppalewuñu sax waaye ñu la suñu kémtalaay kàttan rek taxaw incha allah danañu dem ba ay nit jóge yeneen réew di émigré di ñëw suñu réew nañu gëm suñu bopp rek jàppalante jàppalante te di ñaanal ñi faatu ñëpp yàlla na yàlla xare leen aljanna métti na ndax jokkoon ak kenn fële ca Espagne bu yàggul ci ñuy dox ci loola nee na ma li dee ci géej gi kenn xamul ñaata la tool ba yëf ya tàmbalee ba tey ci 2006 xam nga 2005 jamono yooyu mu ne ma lu ëpp mille et quelque dee nañu si géej kon nag métti na metti na lool ñu ngi masawu wéyjur yi nag. Mm. di masawu wéyjur yi di leen jàll bu baax a baax li nga am ne ñoo ko bokk. waaye nag yàlla baax na yàlla baax na Oustaz Mor mooy war a ñëw léegi incha allah Oustaz Mor Ndao war a ànd ak Seyda Mami Ndiaye ci émission boo am am solo ñu bàyyi leen xel bu baax a baax a baax. mel na ñu àndoon nag euh, mère Kéeman ci euh, Babul Huda di teg mi di rajo yi di leen wax rek ne incha allah. بنين الجمعة كاتلو برمي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي زياد من سيدة مريان أجا زهرة نعم محمد بأينو كان نعم أجا نعم فتبارك الله بلا نعم مريان نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم